jaajëfal nañu leen bu baax ci ànd bi ak euh, topp bi nga xamante ne rek ci lañu koy topp ci site internet bi di Bi TV li gën a fas ci bopp xabaar yi nag dañ ko do wàllum politique ndax kii di Macky Sall rek euh, lan lay dal di waajal nekk laaj bi nga xamante ne daal nañu koy samp Macky Sall ndax moom ci jëmi boppam rek euh, dafa fas yéene rek seppi ay loxoom ci nangum politique bu Sénégal wala nag dafay daal di concentré wu rek ci engagement yi nga xamante ne am na ko bitim réew nekk laaj bi nga xamante ne daal nañ koy samp waaye nag mu nekk laaj boo xamante ne rek daal dinay jur jiixi jaaxa ginnaaw nag biñ ne jël dogal moom ci jëmi boppam rek daal di jox nag uh, siège am kii di Abdoul Mbow foofa ca assemblée nationale ngir mënu mel nag lu war a mën a nekk la ndax kii di Macky Sall rek dafay won ginnaaw nag li nga xamante ne rek moom mooy uh, dundam ci langum politique ngir tournewaat beneen page bu yees ñeel nag li nga xamante ne rek jot na ko dundoo ci nangum politique wala nag ndax bi lay yoon moom moo nekk nag yoon bu mujj rek ci carrière am ak lépp lu ci mënti doon nag ab annonce boo xamante ne rek kenn ci ay jegeñaale ancien chef de l'état sénégalais bi daal na koy xamal ci suñu nattango l'observateur nee na nag président bi dina annoncé du yàgg dara rek li nga xamante ne moom mooy retraite am ci chaîne politique bu sénégalais xibaar bu nu mi mu nekk nag ab haut responsable bu alliance pour la république nga xamante ne rek ne nañ joxoon nañ ko nag ay poste ministériel yu baree bari waaye nag li nga xamante ne daal jot na ko wax moo ne nag kii di Macky Sall mi nga xamante ne rek yàgg na xeex waaye nag yàgg nañu gis rek ay ñenn ci ay ñaale yu ancien chef de l'état bu Macky Sall nag jugee ko foofu ndax nag kii di Macky dafa pare rek pour jugee ko ci langum politique bi abadan nekk laaj bi nga xamante ne samp nañ ko ak lépp lu mu ci munti nekk nag la ñu daal di wax ndaxte nag moom mi fi nekkoon ancien président de la république bu Sénégal nekk fi tamit fondateur parti nekk nag parti boo xamante ne rek bu am base ak ay militant ndax rek moom mi dina pare rek pour ignorer nag réalité bi nga xamante ne moom moo daal di am ci langum politique bu Sénégal ak lépp lu mu ci munti doon lekk ne nañu daal mënta xool Sénégal nii bàyyi ko rek daal di koy bàyyi noonu waaye nag forcément rek dina interpellé wu rek ci langum politique politique bi rawatina nag ci dundu politique yu sénégalais jamono ji ngi wax nag dañoo daal di fekk fi ab cosaan wala sax baaxoon nañ nag di ko def depuis ca président Senghor ba naga ni moo dina nag président sortant moom ci jëmee boppam mënatul rek jaaxal ki nga xamante ne rek moo ko fa wuutu ndax Senghor daal dina koy defal Abdou Diouf Diouf defal ko Wade Wade daal di koy defal Macky kon nag Macky ci jëmee boppam jot na rek mu daal di koy def moom tamit di ay kàddu yi nga xamante ne jot nañ ko yëkkati rek ci sunu nattangooy l'observateur mu nekk kenn ci jegeñaale Macky Sall Sall bu ko daal di xam le mu daal di cay yokk nag nee na moom ci jëmi boppam rek wax nag nag Macky Sall lu toll ci ñaari yoon nekkit démb ak tey waaye nag na daal ma daal di waate rek que ne ab laaj boo xamante ne rek daal na ko koy laaj que ne nag moom mi pare na pour jóge ko ci langue politique abadan waaye nag lu ñu mën a wax ci yëf yi rek mooy président ci jëmi boppam rek naan nee na daal dina jël ab recul maanaam daal dina def ab pose daal di xoolaat pam bu baax réfléchir concentré ci agenda international am bu ko defee nag nee nañ moom ci jëmmi boppam rek mi nga jóge mu nga soog a jóge ko foofa ca diwaan bu Qatar bi nga xamante ne rek dem na fa. demoon na fa nag ci ab conférence boo xamante ne rek dañ ko ci doon sargal jaarale ko ci àdduna wërngal këpp waaye nag li leer ba leer rek moo di ak li mun na a confirmer moo di nag kii di Macky Sall du siège foofa ca assemblée nationale ndaxte nag daal dinay démissionné ngir jox place am kii di Abdoul Mbow jërë ngeen jëf ci ànd bi bu leen fàtte abonné bés cloche de notification yi ngir mën a